rangale ay billet ñaari junni ñaari junni ñaari junni place de France place indépendance ba place de France Thiès nga topp ko di tegle billet ñaari junni ñaari junni ñaari junni ñaari junni ba mu egg mu ne loolu sax boo ko defee matul milliard pour Sénégal yi mun a xam lan mooy. milliard milliard bu bëri la. Hmm. Euh, problème euh, surfacturation yaa ngi koy wax mais aussi bu ñu xoolee euh, benn investissement de l'État bu Sénégal. tant que pare wuñ ba livré ñu ko. Mhm. kenn mun la wax le coût définitif du TER lii la. ah nee décembre lay daw. bon non xam nga décembre moom. <laughs> Macky Macky Sall joxoon nañu date. Uh-huh. Oumar Youm jox nañu ñaari yoon date. Uh-huh. xaw ma ban ministre encore joxoon nañu date. xam nga comme Mansour Faye tamit bu ñëwee bu ko neexee mu joxe mu joxe dat Ah, c'est lui le ministre des Infrastructures. Non, beaucoup, non mais Macky Sall, c'est le président de la République, il avait donné une date. Mm. Est-ce que tax na terre bi daw. Mm. terre bi tant man li may wax sénégalais terre bi de ku ci nar guddul fan <laughs> naroo cee yéeg nañ ñaan yàlla rek yàlla may ñun yëpp gudd fan ak wér-gu-yaram ba ñu fekkee fu muy tàkkee ñu yéeg ci mm. benn ñaar bi mooy lan mooy bu ñuy teg projet yi ngay xool xam nga dañuy naan terre rek mais muy terre bi muy autoroute bi c'est-à-dire que ñoom dañuy teg projet bi ñoom lu ñuy xool mooy seen projet bu ñu teg na rafet mm-hmm. waaye way way dëkkandoowu projet bi duñu leen xalaat mm-hmm. parce que un terre bi problème bi mooy lan mooy tey nu bëri niñ ko tabaxee voie ku bëri fi nga xam ne ndox mi fa la doon jaar dañ ko fatt mm-hmm. parce que ñoom dañoo bëgg préserver terre bi te terre boobu ñuy bëgg préserver nit ñu ñuy lor à côté ñoo war a yéeg ci terre bi à la limite je me demande est-ce que ñoom nekkuñ ci mettre en place une politique pour ñoo ñi fa dëkk dem ba xaddi bàyyi dem ñoom ñu toor a ñëw akam aki moom foofu defar ko defarin bul war pour ñoom ñu jël ko à la limite c'est une question qu'on qu'on peut se poser léegi ñoom dañoo fatt yoon fépp fi nga xam ne ndox dafa waroon jaar dañ koo fatt ndox mi di dellu parce que chaque fois loo gis keroog waa jàmm ngeen ñoo dem mm-hmm. di bari autoroute à péage mm-hmm. lu tax parce que ndox mi fu mu waroon a jaar autoroute à péage ñu ko defaree ak miir yi pour ndox autoroute à péage bañ ndox mi dañ ko delloo ci li lépp lu mu taw ci autoroute bi ci biir dëkk dëkk yi lay kër yi lay dugg. xam nga te loolu mooy ne pas penser de manière structurée parce que un problème on le déplace pas problème da nga koy régler définitivement mais un problème on le déplace pas d'un point A vers un point B parce que boo ko jëlee point A yóbbu ko point B. mooy suba boo eggee point B tamit da nga fay fekk problème d'autant plus que donc boo nekkee un gouvernement da nga am war a am benn vision bu globale vision bu globale mooy lan mooy man maa ngi teg terre waaye su ma tegee terre kat ndox mi fu terre bi na a jaar ndox mi fa la doon jaar wala ci suuf fa la ndox mi doon jaar kon ndox moom bu ma ko fàttee xam naa si kër yi léegi yan stratégie lay teg ba fenn du taa mhm. d'autant plus que ils ont mis beaucoup d'argent. Tout et l' argent c' est l' argent des Sénégalais du xaalisu Masamba du xaalisu Mademba mais yëpp la. problème de surpopulation Dakar aussi on en parle tey est-ce que jotul état bu Sénégal wala sax beneen njiitu buy ñëw euh, yéen ñi nga xam ne Pastef euh, xelal ngeen jiite tey ji euh, Sénégal si seen politique wala seen si seen ay projets yi nga xam ne def ngeen ko ngeen leen a décentraliser quelques administrations ndax mu permettre ñenn si population yi nga xam ne dañoo nekk Dakar te malgré elle moo tax ñu nekk fii ñu mun a rejoindre les leur région d'origine parce que pratiquement Sénégal euh, elle n'existe que de nous. xam nga am na benn phrase boo xam ne balaa muy balaa ñuy nekk mburu ak soow. Mhm. Idi daf ko waxoon te mu nekk phrase bu am solo. Mhm. mooy sa vision ne dépasse pas Diamniadio. Mhm. muy lan xam nga boo bu fekkee ne par exemple tey boo dellu woon ci programme offre programmatique bu ñu joxe woon durant les élections présidentielles. Pastef mu ngi ci doon wax en terme d' aménagement du territoire lu ñu proposé woon. investissement par exemple ñun bu desoon ba ci ñun. xaalis bu ñu teg ci teer bi lu ñu def ci terre bi mhm. on allait mettre ça sur les chemins de fair de manière plus globale mhm. mais investir plus vers Kaolack mhm. investir vers Kaolack mooy lan parce que Kaolack boo xoolee presque c'est la seule capitale régionale du Sénégal boo xam ne elle est presque à équidistance de toutes les autres capitales régional du Sénégal c'est un carrefour te foofu boo fa investir c'est-à-dire que automatiquement da ngay décongestionner te da ngay permettre par exemple ku jógee Tamba du soxla ñëw ba Dakar bu ñëwee Kaolack aajoom faju mu dellu ku jóge Matam kazalika ku jóge Ziguinchor noonu ku jóge Diourbel mun na dem Kaolack cest dire que dem fa dafa yomb si si ñëpp donc c'est un carrefour stratégique pour le Sénégal mais au lieu de faire ça qu'est-ce qu'on a vu on a pris tous les projets de l'État la seule porte d'entrée qui restait à Dakar mooy Diamniadio moom la gouvernement Macky Sall dem fat c'est-à-dire que boo xoolee porte d'entrée Sénégal Dakar Diamniadio la moom rek moo fa desoon moom la gouvernement bi ñëw fàtt bu ko fàttee nag au lieu mu décongestionner mais dafa gën a tëj ndakaaru parce que loo looy gis mooy comme par exemple tey dañu naan par exemple dañuy déplacer administration bi mhm. yóbbu ko jam ñaaju mais bu ñu déplacer administration bi yóbbu ko jam ñaaju les zones dortoirs mhm. c'est pas jam ñaajo c'est Guédiawaye c'est Pikine c'est Ouest Foire c'est Yeumbeul c'est Thiaroye mhm. ñoo donc ça signifie que lan mooy ñun ñëpp comme doon am Dakar mooy am ñëpp a yeewandoo demandoo jam ñaaju mhm. embouteillage am heure wàcc ñëppay mhm. wàccandoo donc tu ne règles pas le problème alors que stratégiquement ce qu'il fallait faire c'est déplacer une bonne partie des activités économiques vers le centre du pays parce que boo ko déplacé woon activité économique nga yóbbu ko vers le centre du pays par exemple qui polarise parce que Kaolack dafa am tous les atouts mhm. comme par exemple on nous annonce un port man ma déggee ñu annonce ko ma ne ko ah au moins ils ont ils commencent à comprendre mhm. mais le port on l'a annoncé depuis combien d'années lan lañ fa def à part pose première pierre te yaa ragal naa sax puis première pierre bi sax est-ce que réeru moom lañ fa defoon te buñ ko fa defoon parce que Kaolack dafa am atout yëpp zone boobu centre pays boobu boo fa investiroon nga def fa def fa le cœur économique du Sénégal c'est-à-dire que yu bëri yoo xam ne mu ngi dakaar tey day génn dellu foofu ba pare tamit investissement yoo xam ne dañ ko def ci terre bi mhm. tey supposons ñu defoon investissement yi sur les rails mu nekk ay des trains à grand écartement nga xam ne par exemple jóge euh, Dakar dem Saint-Louis ça prend maximum trois heures de temps supposon mais loolu bu ñu ko amoon tey am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ba Ndar ba Louga mais du ñu fanaan Ndakaaru da ngay yeewu sept cinq heures du matin nga jël sa train huit heures yaa ngi Ndakaaru liggéey mm-hmm. boo wàccee dix-sept heures nga jëlaat sa train mm-hmm. vingt heures yaa ngi Ndar te du nelaw luwaas dina la wàcc mhm. ndakaar dina yaatu ku nekk dëkk sa dëkk mais au lieu de sa ils sont dans des investissements de prestige mhm. France moo leen di wax def leen ci terre ñu jël xaalis def ci terre terre bi nga xam ne mu ngi à terre te ba léegi doxul dikkut mhm. Euh, tout à fait. Euh, juste pour rappeler aux internautes, euh, il y a une émission, le rendez-vous de Sénégal, c'était avec, euh, je suis euh, monsieur euh, Alpha Ba, il est du PASTEF. monsieur Ba, ñu wax si leneen dañuy tàmm fii Sénégal dañuy topp politique bi ba ba ñu dañuy fàtte l' essentiel mooy essentiel mooy dundini doomu aadama yi te seetlu ne ne weer yi yëpp fu mu toll nii les denrées de première nécessité dañoo mun nañu wax ne doublé mais dafa mel ni comme Macky Sall ak i ngoñam dañ see wone euh, benn euh, ñàkk mën dara mu mel ni comme dañoo démissionné euh, wala sax dañoo mënta lijjanti par rapport ak flambée yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci ceeb bi kër moom pour nga gis ko il faut nga dem ci magasin tubaab yi li nga xam ne mooy ay bouillon nga xam ne sax mun naa ne carrément problème de santé publique la ñoom dañoo dem ba double fii mu mel ni comme Sénégal dañuy vivre comme un état riches te les salaires dañoo stagné mu nekk loo xam ne aussi ça pose problème. xam nga loolu lu ko indi <clears throat> parfois sénégalais yi day am loo xam ne day dal seen kaw ñoom jamono ju mu dalee seen kaw rek lañuy ñuy jàngat. Mhm. du ñu xool lu nekk ci ginnaaw balaa loolu di ñëw lu ko waral. tout à lu ko waral yomb na. xamee mhm. ah, ñaar mbir nañ ko jàpp. Mhm. benn bi mooy gouvernement du Sénégal dafa nekk ci problème de tension de trésorerie dañoo soxla xaalis. Sénégal dañoo leba leb ba kenn presque amatuñ fu ñu lebee donc léegi ni ñu mën a def rek lenn rek la mooy trouver de nouvelles des des ressources additionnelles supplémentaires te ressources additionnelles supplémentaires fu ñu ko mën a jëlee du fenn fu ci taxe et mm-hmm. dañuy fàtte mais motul ñaari weer ñetti weer on a voté une loi de finances rectificative. tout à fait 2021. ci biir loi de finances rectificative bi. Sénégal dañuy fàtte gouvernement Sénégal moo ne. Mm-hmm. ci jim euh, mooy euh, ni ñu koy wax bouillon yooyu ngay wax mhm. soxla nañ ci fexe ba génne fa ci impôt mhm. lu tolloog ñetti milliards xaw ma fukki milliards mhm. mais boo waxee loolu nañ ko fa jëndee ci impôt du usines yi koy defar ñoo koy fay ñooñ dañ koy répercuter ci produit bi buñ ko répercuter ci produit yow bouillon bi nga doon jëndee fukki dërëm mu tikkee la ñaar fukk juróomi dërëm maintenant c'est à cinquante francs donc cinquante francs yi jàppal ne gouvernement Sénégal moo ci teg juróomi dërëm du defarkat yay yokku de gouvernement ci yokk yeneen yi ñuy wax dañuy fàtte ne y a pas longtemps douane génne na benn not tous les prix tarifaires des conteneurs au niveau du port dafa yokk kon bu ñu yokkee prix conteneurs yi ñu ñuy doon wàccee chargeurs yi lu ñu doon wàcce maanaam ñu doon indi parce que ñun lu bëri si lu ñuy lekk dañ koy jéggaane bitim réew fekkee lu ñuy lekk conteneurs yi koy indi taxe bu ñu doon fay duwaan duwaan daf ko yokk ba duble ko presque mais ñooñu bu ñu ñëwee ñu ko doon jéggaane commerçant yi ñoom duñ ko nangu supporter c'est-à-dire que yow consommateur final bi lañ koy teg donc état moo ñu teg yokk bu ñu nekk donc du question mënuñ ci dara ñoom ñoo ko def moo tax duñ ci wax. mais par li président Macky Sall est-ce que tey mënuñoo wax ne amul échec par rapport à sa politique parce que gis nañ na carrément fu mu toll ni euh, média boo ubbi ñu ngi koy def vaar parce que moom moo waxoon ne li nga xam ne mooy yokkute prix du mësa a am sur son magistère. non xam nga loolu bu mu koy waxoon na ko mhm. waaye coow li coow li yëpp leen la bu mu koy wax gëmu ko bu koy wax gëmu ko parce que moom lu mu gëm mhm. mooy moom en tant que Macky Sall ak ñu muy àndal nan la ñuy bànneexoo